ku nekk di daw di làkku fii ci centre ville bu Ndakaaru li lañ nemmeeku tey jii bi nga xamante ni policiers yi ak manifestants yi di dàqante ci biir centre ville. mu nekk loo xamante ni tax na ba ñu bëri tëj seen boutique mu nekk loo xamante ni jaaykat yi ñu ngi koy ñawlu bu baax a baax. ah mais dafa nekk li nga xamante ne bi kenn ku nekk li gëm daal bon manifestation am na ñoo xam ne dafa leen naqari ñu nekk si am na ñoo xam ne tamit ni mu waree ndax kenn ku nekk ni nga ko gis daal. ci jamono yi nga xamante ni yi ñu ngi sànni ay lacrymogènes manifestants yi ñoom di lakk ay pneu mu nekk ambiance bi nga xamante ni ambiance bu doy waar. mais moom moo am responsabilité bi parce que moom mooy état. moom moo guverne sénégalais yëpp ça veut dire que bu tëddee woon njaaxaanaay woo opposition bi woo société civile bi woo ñëpp waxtaan ak ñoom gars yi jël li ñuy jël li baax li ñu jël li nga xam ne d'accorduñ ci ñu teg fële mu jël noonu la defoon législative yi gars yi tamit dañu maara ah, opposition bi dañu dañu moo dañu maar dañu sonn. ñun xoolal ñu ñooy muucu suñu rakk bi mi ngi nii léegi la daanu fii c'est pas logique. am na yoo xam ne am amuñu ci posé question bi ñoom ci boppam ku ci toog boo xoole mbedd bi di nga xam ne c'est pas logique parce que tu es amoo benn benn lacrymogène ju la daal mais ñun ñi ñu nekk sénégalais mais kenn kenn ëppale wuñ ñu dara li ñuy nooy la ñuy nooy kon donc nañu xool loo xam ne moo arrangé askan bi ñu xool lan moo arrangé population bi ñu def ko. jaaykat yu bëri tey jii mun nañ wax ne seen chiffre d'affaires dafa wàññeewu bu baax a baax ndaxte ñu bëri dañu tëj seen boutique yi ngir rek moytu manifestant yi nga xamante ni ak policier ñu ngi daqante ci biir Ndakaaru